jërë ngeen jëf artémisia di garabug Madagascar gi ñu ne woon dafay fàcc corona l'observateur mi ngi ñuy wax li waral ba bi garab gi duggee ci réew mi ak léegi dégguñu fi kum fa faj dégguñu fi ku ci fajo yéene kaay bi nañu covid organique gi di artémisia googee daanaka na mu ñëwee ci réew mi noonee ko kilifa yi gàll wàllu wér géram ci réew mi taxañee ba mu jekk sànni ca sën ba mu di ca poubelle ba professeur Moussa Seydi ak ñi mu àndal ci liggéey bi rapport yi ñuy def loo tukkikat yi ci aéroport journal bi nañu ñu bari ci ñoom jàpp nañu ne yëf yi dafa làmboo ay tappale ki jàcc ni tukkikat bu ca yegg ci aéroport international Blaise test covid ba ñu lay def loo nga cay fay fukki junni yu manki ñaar maanaam loolee bari na ñoo xam ne dalul seenum xel kenn ci ñoom di honorable député de la diaspora Mor Kane ne moom li mu gis yëf yi moo di guerre directeur de la prévention du docteur El Hadji Mamadou génnum réew in fokk da ngay def test yi ëndaale moo tax ñu leen koy yombalal ci aéroport bëgg mu jàppandi ci ñëpp ñëpp xam nañu li coronavirus bi yàq ci koom-koomu Sénégal la Sénégal nañu moo waral njiit réewum Sénégal di Macky Sall mi ngi seeti pexe ngir suqali koom-koom gi ci réew mi démb ca ndajam conseil des ministres fa la birale yéene ji mu am ngir suqali mbay mi ak càmm gi loolee nag mi ngi ciy séntu secteur privé bi ci réew mi ngir ñu ñëw jàpp ci bu baax la Sénégal bindal ñu ci xëtamu njëkk ne ngir relancer dajale ñi mu ci yaakaar waxtaan ci ak ñoom jii di ñëw woote moom président de la république talaata jii di ñëw yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar ngir xooli pexe yu ñu mën a yëkkatee économie bu Sénégal la tribune ñu Macky Sall mi woote ndaje mi teg na ay plan ba noppi bokk na ca plan ya nu mu fexe ba investissement yi bari ci secteur agro industrie ak ci càmm gi tàllal nay loxo it secteur privé bi ci réew mi ngir ñu ñëw jàpp ci combat bi Kër Massar gi mu bëgg a def département moom président de la république Sud Quotidien nee nañu bari nay kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu décentralisation bokkewuñu ci gis-gis ak Macky Sall kenn ci ñoom expert dem ci bay Sud Quotidien ne dogal boobee dogal la boobu politique ak bëgg a wax nit ki lu mu bëgg a dégg moo ko lal ñu lallee te lal les échos ci suñu kanam maire bu Pikine Nord di Amadou Diarra moo fa xëyee ay dëggam yu tàng jër mbiru waame gi waxi chef de l'opposition ak ëllëgam ci wàllu politique ba ci diggam ak àndandoom yawoon di waa Parti démocratique Sénégal lu ca nekk Amadou Diarra wax na ci Amadou Diarra nee na waa PDS dañu ko war a baalu mu ne it moom la nga wut ak kenn ci kenn électron libre la noppi na ngir liggéey ñëpp ba mu des bu ñu taxawoon tey jii di seet kan mooy wére opposant ci réew mi ku taxaw di opposé wu Macky Sall Ousmane Sonko lay doon waaye nag chef de l'opposition ci réew mi moom Idrissa Seck la élection locale yi ñuy wàcc ci réew mi weeru mars 2021 Amadou moom gisul nu nit mën a muusaka maccatee bay élection locale am ci réew mi mars 2021 6 octobre ci la màggal ak Touba gi enquête dina kay nañu njiit réew mi Macky Sall ñoo ngi koy séntu ca Touba samedi jii di ñëw ni mu ko baaxoo ci wattaayu màggal gu nekk journal bi dañu jukkil dossier yi xaar Macky Sall ca Touba bokk na ci yu mu fa woon te defagu ko ak yu mu fa sumboon te ba léegi sotteegul mbirum ndox mu yemb ak courant bu jàppandi ca dëkk ba ci jamonoy màggal gi dina bokk ci dossier yi xaar président ca Touba ca Touba googe suur soi nee nañu am na fay kilifa di mbàkke mbàkke ak i bay fal yoo xam ne ñoo ngi na si pexe ak di tegi plan ngir tere soxna Ayda Diallo mu wooteeg màggal ca Touba bëgguñu sax mu teg fa tànk ay plan anti Ayda lañu ko tegal waaye ci jamono jooje yéenekaay bi nee nañu moom soxna Ayda Diallo mi ngi waajal màggal gi bu baax baax bañ na ko ba ma woon ci réew Mali doon fa nag ngir màggalu Touba fa nekk di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalifa général des Mourides journal l'info nee nañu dugal na loxoom ci liggéey yi ñeel jumaay Tiwaawoon ji sëriñ Muntaxa joxe na ca téeméeri million ak juróom-ñett fukk ak ñaar yu teg vox populi nee nañu ci lañu xayma dorog bi duwaañum Sénégal teg loxo ca Koungheul ci camion bu jóge woon Mali ci lañu ko nëbboon duwaañum Sénégal ñaw bu ñu ñaw moo waral ñu teg ko loxo ginnaaw duwaañ ak li ñu teg loxo ñu wax ci gendarmerie mu di immigration clandestine xewit woowee gaañi jëlaat nañu ko li koy firnde libe nee nañu moo di ci benn semaine teg nañu loxo téeméeri doomi aadama ak juróom yoo xam ne dañoo mbëkkoon gaaliloo ci cay wutali bitim réew ña leen doon yóbbu ñu di passeur jàpp nañu ci ñoom fukk ak ñett